أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ngi sant yàlla subhaanahu wa taala sunu borom di am mbégte ak kontaante daje ak yéen waaye fàttalante ak yéen ci tomb bi nga xam ne dafa bokk ci jaamu yàlla yi sunu borom subhaanahu wa taala santaane ñu war ko ko jaamoo léeg-léeg ñu faral di wax ne jigéen sunu borom subhaanahu wa taala moo ko defal lépp jigéen sunu borom subhaanahu wa taala moo ko defal lépp moo ko xottil yére mooy téyëram mooy ko ñawal sunu borom subhaanahu wa taala mooy ki fuug lu jigéen ñaari mbir ci lislaam yonent bi li muy màgg lépp yàlla tegu ko ci loxoom mooy jigéen ak xaalis loolu sunu borom subhaanahu wa taala moo ko tereeteel boppam ci téeréem bi jigéen ba muy juddu ba ba muy delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala fii lépp suban sunu borom subhaanahu wa taala kàddoom teggeekul ci moom tomb yu mel nii nag mooy col ko jigéen ak ay melokaanam yi ci aju tey jii waxtaane ko ci sunu mbooloo mii ñu ànd di dund ngir yàlla lu jaadu la lu jaadu la dafa bokk ci tomb yoo xam ne bis bu nekk suñ ko mënoon dañ koy fàttali mbokk yi jigéen yi waxuma sa xale yi ndaw yi di doog a dugg ci liggéey bi waaye am na ci ay mag ñoo xam ne sax fàtte nañu naka la jullit bu jigéen di solo waxuma xale yu ndaw yi ndax léeg-léeg àdduna ak seytaane fëkk doomu aadama damay seetaan ci internet benn benn paragraphe bu ndaw ay dix minutes la xaw ma cinq minutes bu ñu bu ñu def ci YouTube ñu bind ci alxijaab wa seytaan ndaw si yeewu na xëy fajar sangu ba pare salu taxaw ci kanamu seetu bi xijaab xijaab bu normal mu ne nii dem bay dem seytaane na ko non bi dafa ëpp waaye seytaane ñëw taxaw ci ginnaawam mais nekk benn image benn jëmm ni ko lii ëpp na foo jëm ci biti nii nga nar a demee mu taxawaat seetu bi daal ne nii xijaab bi ah mu ne waa ni mu ne ko non mais non mais yow ci benn image mais bàyyiwul ndaw si bàyyiwul ndaw si ba daanaka mun nga ne dafa jël rek la xas yëpp nekk ci biti mu dem yoonam seytaan noonu lay def doomu aadama da ngay jóg jëm ci yoonu yàlla souvent leel yenn saa yi ndeysaan nit ñi dañ naan pourtant man maa ngi jàng alxuraan li ngeen doon wax léegi-léegi ci wàllu njabar maa ngi jàng alxuraan maa ngi jàpp maa ngi maa ngi mais su ma ñaanee misaal yàlla du ma may wala mais mais a yow la yow lañ soxla nag yow la seytaane soxla seytaane soxlawul ñi nekk ci baal yi ñi nekk ci stade yi ñi nekk ci seytaane soxlawul ñooñu lan moo tax seytaane soxlawul ñooñu parce que ñooñu ci loolu lañ nekk seytaane xam nga kan la soxla ki ne yàlla maa ngi nii di ñëw ci yow ah seytaane nag day taxaw ci digg doon bi nag ne la doo dem nag léegi nag mu nekk bëre yaa ngi ne da ngay dem benn waay taxaw ci kanam ne doo dem misaal tey bu ñu ne woon dañuy génn am ponkal mu taxaw ci buntu bi ne du ngeen génn bëri lay laaj pour ñu génn ah mbokk yi lii la ñu fàtte nag ñun lii la ñu fàtte ba sunu col ko yépp changé col yi soppeeku yére yi soppeeku lépp soppeeku dem nañ sax ba ñun ñi dund lislaam xamatuñu awra jigéen fu mu tàmbaleeg fu mu yem yére bi booy ñëw lu la neex ngay ñëwee modd bi sa yoon sàmmonteeg almaratu kulluha awra ma adal wajhi wal kaf da ngay jël sa yére léeg-léeg sax nga am benn dëkkandoo boo xam ne ci koñ bi da ngaa seen mu sol benn yére benn ndoket benn marinière benn benn benn mu ñaw ko ñaw bu kii nga am yére rek sa xel dem ci loolu nga jël ko ni yónni si yónni demal wala nga demal sa bopp eh sa marinière bi nga soloon barki démb mu ne ah abal ma ko loo abal ma ko rek modèle laa jël fàtte nga ne kii yow du dub yow ab nga kii dub yow ab nga nga dem ñaw ko modd boobu ah ab jaamu yàlla wala ñu ne ab ibaadu kii du ibaadu yow ibaadu nga fàtte nga loolu nga dem jël modèle kooku nga xam ne du ibaadu du jaamu yàlla nga dem ñaw modèle am nga sol ko nag fi xat-xat fi fant-fant léeg-léeg nga gis ab ibaadu ndeysaan bu la romb sol sol sifu bu gudd wala ginaar nga gis ñu xar ko ba ci oom yi ngay gis nii oom yi tànk yi ci ginnaaw di feeñ sa yaram daw nga xam ne kii seytaane taf na ko bu yàgg kooku ñooñu lañ naan amilatu naasi ba sonn te duñu fayeeku omar ibnul xataab radiallahu anhu wa ardaahu dafa jékki-jékki rek dugg ci église bi jooy sahabatul kiram tiit Omar subhanallah Omar nga gis chrétien di jooy mu ne ooy damay jooy ñu ne lan la mu ne dafa sonn te du fayeeku alquran moo ko wax amilatun nasiba gis ngeen lii lii coono la nga nekk ci nag juróom fukki at nga dee yàlla jëla yóbbu la safara te yaa ngi muuru mu ngi delloo si xel yi lii du modd du toppandoo du mbooloo ibada la ibada ya ayuha nabi qul li azwajika wa banatika wa nisai lmuminin yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yurafna fala yuzayna wa kana allahu gafuran rahima kan la yàlla woo ki jiite liggéey bi ki yàlla yónni woon ci nit ñi nan la ñuy jaamoo yàlla yonent bi di ko wone gis ngeen souvent li may faral di wax nit ñi ba léegi hatta gis nga xam nga ci weeru gàmmu lañ nekk mais jullit yi ba léegi xamuñu kuy Muhammad wala liñ ci xam mooy li xale yi di jàng jardin Abdalaay baayam Amina yaayam màkk la juddoo mënti lal faatoon ba léegi ñun ñii waxuma ñu dundul sunna de ba léegi ñun ñii ci ñuy dund sunna am na ñu xamul kan mooy Muhammad musiba weesuwul loolu mbokk yi maa ngi dénk sama bopp di leen dénk lii fara sell lii nii lii nii yére yii ngeen sol du muuraay bi rek laay wax de muuraay bi ba ci suuf dafa war a sell yàlla yonent bi la woo ne ko ee yow yonent yaa ayyuhan nabi ee yow yonent lu tax ndax mbay ci sa weewu tànk olof nee nañ bala nga ne naam kon yow yonent yow yaay jàngale waroo wax nit ñi sa kër di boy kon waxal say soxna qul li azwajik est-ce que ñoom rek wa banatik ak say doom yu jigéen fatima zaynab roqaya umu kalsum sa doom yu jigéen yooyu na nga leen wax ñan wa nisaa'il mu'minin ak soxnaay sahaaba yeeg jigéenu jullit ñi nañu muur seen awra yi yaay aysa nee na yal na yàlla yërëm jigéeni ansaar keroog bi aaya bi wàccee ña rooti woon ca teen ba ña demoon marché dañoo taxaw ba ay muurukaay fekki leen ñu muuru ñibbi dañoo taxaw de taxaw taxaw ku waroon yenu paan bi ne du ma yenu paan bi lu dul damaa muur sama bopp bi ba pare ki waroon jënd ca marché ba njaay taxaw ne ki ko doon wax si doom ji ko doon wax si dellul kër ga indil ma lu ma muuroo ma muuru doog a def mu ne ko nañ dem ba kër ga mu ne ko su ma deewee ci yoon bi dégg naa waxu yàlla damay dem safara ah wallaahi ñun suñu problème nag mooy ñun suñu problème mooy naa muuru mais avec man ni ma neexee pas ni neex yàlla. ñu ngi muuru de c'est bien beau ñu ngi muuru bu baax waaye muuraay bi dafa nekkul ngir yàlla parce que yàlla ni ñuy muuroo yàlla santaanewul lool ñu ngi sol waaw mais ni ñuy soloo yàlla santaanewul col googu ab jigéenub jullit su yoroon xaalis war a dem marché jënd yére dafa war a xam ban ban couleuru yére la jigéenu jullit war a sol couleur waaw ban couleur nga war a sol avant de yére bi nan la war a mel nan lañ ko war a ñëwee damay laaj di laaj ngir yàlla fii nu toog kan ci yéen moo mës a am xaalis ne maa ngi dem marché jëndi balaa muy dem marché mu jokkoog benn borom xam-xam mu ne ko yére jigéen couleur bi nan la war a mel kan ci yéen fii moo ko mës a au contraire sax da ngay toog ci télé bi rek ki animé animatrice bi ñëw sol tey benn cippi capp car-car nga am xaalis rek waaw kenn du ma ci njëkk dootoo xool léegi yàlla léegi nag su fekkee ne léegi noonu la ñuy dundee ana sunu islam damay laaj bu fekkee ne léegi ñun noonu la ñuy dundee ana sunu diine wala da nga yaakaar ne diine mooy nii jël kii muuru nii ñu ne allah wal nga ñëw pare loolu loolu xale yi di wax dafa yomb diine du loolu diine yow du du loo bëgg mais li yàlla bëgg la diine du yow loo bëgg li yàlla bëgg la charte léeg-léeg ngeen romb jigéen joo xam ne dafa sol ay kawas sol ay gants sol tout noir muur kanamam su ko defee ngeen wuu kii dafa ñii nag dañoo ëppal nag ah ëppaluñ de ñooñu ëppaluñ de ñooñu dañoo bëgg a dugg àjjana ñooñu ëppaluñ de ñooñu dañoo bëgg a dugg aljanna ku mu neex mën nga def lu mel noonu waaye nag waroo yées quand même xoolal bu jigéenu jullit demee ba def loolu ngir bëgg a dugg aljanna xam nga kooku xoolatul léegi lu rafet xoolatul couleur xoolatul ñaw xoolatul modèle moo tax foog ngeen génne seen bopp yi ay modèle ak i ay couleur ak i ay xewit ak ay mariage de couleur ak ngeen génne ko seen bopp yi yéen a may dégg gis nga ku bëgg ñi bëgg a dugg àjjana fii laa wax de saal bi am na fii ñu bëgg a dugg àjjana ñooñu ñooñu laay waxal waxuma ñu ñëw ci mbooloo mi rek ngir sama yaay ak sama papa ay ibaadu lañ rek bon fa ma nekk ibaadu waxuma loolu de te loolu nu mu dangereux il faut ñu bàyyi xel lan moo tax lii li ñuy dund lan la lii jaamu yàlla la solu jigéen jaamu yàlla la gis nga ni ngay jullee julli jot ñeme woo toog tardel waxtu wi koor jot ñeme woo bañ a woor yére yi noonu la war a mel nga sàmmoon teg moom parce que yàlla moo la ko sant xam nga ban couleur nga war a sol yére bi bi nga koy ñëwee nan nga ko war a ñëwee yan charte la war a am muuraay bi kazalika bu fekkee dañ la ne yow sa kanam mën naa feeñ ak say loxo mais kon na nga charton teg kanam gi ni muy feeñee léegi bàyyi naa kii mur kanamam ki nga xam ne kanam gi dafa war a feeñ laa wax dafa war a sartante kanamam nan la war a feeñee est-ce que nu la neex nga feeñale sa kanam ci mbedd mi léeg-léeg nga dégg xale yu góor yi nga xam ne gëmuñu yàlla dañuy seen kenn kuy muuru ñu e booy booy yow di nga ma tax a nekk ibaadu yow kuñ wax loolu xam nga ne yow li nga def jaaduwut képp ki yéen ku solu génn góor ne la yow di nga ma tax a ñëw ci seen mouvement bi yow yaa ngi yàq mouvement bi soo solu woon col gu baax kenn du la wax liñ la wax ça veut dire que sa col gi dafa des loolu moo tax waa ji ñeme la ba wax la offensé la comme li yàlla doon wax ne fala yu zeyna aaya bi loolu la ko yàlla jeexale fala yu zeyna ma kenn du leen offensé di nga ma tax a nekk ibaadu wala waay lalal naa la ay pararara yooyu wax yooyu góor yi di la ñeme ci mbedd yi bala koy wax ça veut dire que bàyyi nga waxu yàlla kon tomb bu njëkk ci alxijaab yéen ñi ànd ak man tomb bu njëkk ngeen di bind bind leen alxijaab taatun lillahi wa rasulihi alxijaabu taatun lillahi wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam muuraay ak col ko jigéen topp yàlla la ak topp yonent yow mi muuru wala yow mi bëgg a solu col gu baax lii ngay def lan la li nga war a njëkk a dugal sa bopp mooy lii ngay def lan la topp yàlla topp yàlla toppoo sa papa toppoo sa yaay toppoo sa maam toppoo sa jëkkër toppoo modd toppoo mbooloo mi kan ngay topp ci lii ngay def yàlla taatun lillah wa taatu rasul ak topp yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi nag bu fekkee man dama ne damay topp yàlla di topp yonent mais ci biir topp gi may topp yàlla damay topp yàlla saloo ko man ni mu ma neexee topp ma yàlla saloo ko ni ne ni yàlla bëgg lan la yàlla wax maa kaana li muminin wala mumina ida qada allah wa rasulahu amran an yakunu lahumul xiyara min amrihim daganul ci yow jullit bu góor wala jullit bu jigéen yàlla kub yonent ne nii la ci biir li la yàlla wax ne nii la yow nga koy nga ngay ngay defee nim la neexee kon bu dara desul rek lu dul muuraay bi yow yaa ngi ciy xool lu la neex ban couleur ban couleur ngay muuru ah ban façon nan nan façon bi nan nga koy defee nekkatul léegi ngir yàlla taatun lillah topp yàlla atiu llah wa atiu rasul topp yàlla topp yonent man ata ar rasul faqad ata allah ku topp yonent topp na yàlla wa man yaasi llaha wa rasulahu fa inna lahu naara jahannam ku mooy yàlla ak yonent soo dee foo jëm dafa leer yàlla mu ne jahannama nga jëm léegi nag imaginel yow bi nga jógee ne damay topp yàlla dara desul lu dul yére bi baax na wala muuraay bi baax na mais nga soloo ko nu mu baax nu baaxulee ndax loolu nga waroon topp yàlla da nga ci am tiyaab wala bàkkaar nga yam bàkkaar nga yam mi ngi mel ni nga waroon julli nga ñëw jàpp wala nga sangu sol yére yi baax muuru ba mu rafet wala ku góor la nga ñëw lal si jaada bi jublu ci kanam yàlla julli gi nga jullee ko nu mu nu mu warulee looy fay jëlee gis nga boo paree julli julli gi moo lay joxoñ ne la dayyaaka allah kama dayyaata nii ni nga ma sànkee yal na la yàlla sànkee noonu kon mbokk yi maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp ñu delloo si waat xel yi tey xam ngeen ne muuraay wala ibaadu rahman bu jigéen xam ngeen ne tey ci Sénégal colkaam muuraayam dafa wuuteeg bu lislaam dafa am benn ustaas bu daan tooñ jamaatu ibaadu rahman ak alfala benn ustaas bu leen daan tooñ waaw bu leen daan tooñ daan leen sànni ay xeer xam nga lu mu daan wax ibaadu rahman bu leen kenn roy ci muuraay fala bu leen kenn roy ci politique ça veut dire que ibaadu rahman muuruwuñu loolu la daan wax yàlla génn na àdduna yàlla na ko yàlla yoon loolu la daan wax ibaadu rahman bu leen kenn xool ci muuraay parce que seen muuraay baaxul fala mu ne bu leen kenn xool ci politique parce que jànguñu ko mënuñu ko gis ngeen loolu nag war naa dugg ci nopp ibaadu yi ñu xool ni ñuy muuroo ndax noonu la wala du noonu ci kaw nag laa wax ba ci suuf fépp nag waaw léeg nga dajeeg ibaadu rahman bu dangal muuru dangal xóotal muuru xàppati muuru yaraaxal ba mu yaraax léeg-léeg sax nga gis kenn ki li mu tegu ci bopp bi yaa ngi seen létt yi ndeysaan dafa tàll nga gis létt yi def nii mais non parce que moom teg naa kol ci kaw rek teg kol ak muuraay du benn de teg kol ak muuraay du benn sunu borom subhanahu wa taala ba muy wax xadiisu jigéen ñi dugg safara lan la wax dafa ne kaasiyaatun xaariyaat solu ba pare sa yaram nekk ci biti day am ci jigéen ñi solu ba pare nga gis sitien yi sax yenn saa yi nga gis sitien nga mun a xam ne sitien bu xonq wala bu ñuul wala bu bleu kii kii dafa ñëw jàngi si de oustaz maa ngi nii jàngis ñëw naa nga gis ween yi ci biti te mu ngi gàddu kaamil du lu ñuy ree de billaahi li ngeen di ree ni du ree du lu ñuy ree lu ñu war a jooy la ndax ay bàkkaar la ñaareel yéen ñi bind alxijaabu iman xijaab muuraay sol ko jigéen ngëm yàlla la ngëm iman iman lu tax nga def ko lu tax nga def ko dañu ne yow da nga am iman kee lu tax mu bàyyi dañu ne amul iman yow mi ne am nga iman ba pare nag sa iman boobu lan la la war a jëriñ lan mooy iman muy ngëm yàlla kon yow suñ la gisee loolu la yàlla waxoon ci aaya bi mu ne buñ la gisee mën laa xàmmee ku amul iman ñu mën leen a xàmme ñu mën laa xàmmee yow mii ndax yow da ngaa gëm yàlla subhanahu wa taala xam ne kii ku gëm la ndax li mu li mu solo ku gëm yàlla nii lay solo ku jigéen kon il faut ñu bàyyi xel ne sol gi ak muuraay gi du teg rek déedéet dafa am lu tax nga def ko kii julli lu tax muy julli dafa gëm yàlla kii woor lu tax muy woor dafa gëm yàlla yow mi tamit ni nga solo ak ni nga muuroo lu tax nga def ko parce que da ngaa gëm yàlla léegi nag boo demee sa muuraay ak sa col ko dem ba kenn xàmmeetu la ak ñi gëmul yàlla war nga xool sa bopp war nga xool ndax yow am nga iman yonent bi saa sallam da doon contrôler iman yi benn bis dafa xëy rek daan ne kayfa asbaxtum nan ngeen fanaanoo nu ngeen xëy tey benn saabatutu xaaris ne ko asbaxtu muminan billah man ne bi may xëy tey damaa xëy di gëm yàlla yonent bi ne ko fama alaamatu imaanika luy wane ne yow gëm nga mu ne ko talabtu dunia wastakbaltu alaxira dama bàyyi àdduna topp alaxira gis nga bàyyi àdduna dama bàyyi àdduna topp alaxira léegi moo tax boo bëggee jaamu yàlla foog nga bàyyi àdduna xam ngeen ñun suñu jaamu yàlla bii ñuy jaamu yàlla dafa am luñ ci dab dafa am luñ ci dab lan moo ñu ci dab bëgg àdduna bëgg àdduna naa muuru mais naa ci boole àdduna nag ah damay jaamu yàlla nag waaye duma ko bàyyee kenn nag waaw ne nii yëngal duma ko bàyyee kenn nag waaw dañuy defar ba mu baax étage ba mu kawe ah gis ngeen baadu yooyu sax léegi nga dégg ko ci ibaadu yi defar ba mu très bien fu ñu jëlee baat yooyu fan lañ jëlee baat yooyu ci ceddo yi ci jaahil yi yow xam nga lan moo la wala intéressé ci lii ngay def wa ajjaltu ilayka rabbi li tarda yàlla dama man damay def lii ngir nga kontaan rabia rabiat al adawi jigéen la seen morom la woon xam nga lu mu daan wax ci jaamu yàllaam laytaka tarda wal anaamu xidaabu yàlla boo kontaanee ku mer affaire am la yàlla boo kontaanee ku mer affaire am la maanaam yow li ngay def yëpp xam nga loo war a wut ngërëmal yàlla jàngeen ci alquran yàlla mu ne wallahu wa rasuluhu ahaqu an yarduhu in kaanu muminin yàlla ak yonentam moom ngeen war a ut kontaanteem képp ku ñuy ut sa kontaante ci kaw suuf kan moo ci ji war a jiitu mooy yàlla ak yonentam yàllaa ko yonent moom la ñu war a ut kontanteem du jëkkër du baay du kenn du sax mbooloo waaye kontante yàlla ni ma solo est-ce que yàlla kontaan na ci muuraay bi ma muuroo est-ce que yàlla kontaan na ci loolu mooy wax ci loolu mooy wane ne yow lii nga def imaan a ngi ci imaan mais bu fekkee mbalit la ruusit la da ngay dem di dem rek dangaa bokk ci ñooñu naan inna wajadna abaana ala umma man dama fekk rek sama ndey ak sama baay di def li ma topp mais amoo conviction iman dugul la ci gëmoo yàlla defoo ko ngir topp yàlla peut-être sax benn waay ci koñ bi moo la ne boo muuroo ma takk la wala dangaa yàgg muureeku amoo jëkkër nga ne ibaadu yi moom damaa gis ne ku ku muur rek ñu takk nga xalas tax sa ñëw du dem loolu du sell parce que innamal amal da ngay sonn mais sa yéene boobu la la yàlla di fay moo tax képp kuy dund lii da nga war a xam ne lu njëkk mooy topp yàlla ñaareel mooy imaan ñetteel mooy alxijaab taxaaratun taxaaratun laab la laab laab lii ku ci nekk da nga war a laab moo tax warul salte xoolal tey ni ñu ko salteele ah rappeurs yi sax da ngay dégg ñu koy woy rappeurs yi naan gis naa ibaadu bu ñu déggu leen ko déggu leen rappeurs yi di ko way gis naa boo xoolee télévision bi yenn saa yi nga xool match football yi ci stade yi nga gis ku hijab toog ku muuru toog boo xoolee stade yi làmb yi làmb ji stade bi supporters yi nga gis ku sol t-shirt bu yem fii sol sol tubéyam seen tir dangal ba mu dang muuru nekk ci tribune bi di yuux te lii dafa laaboon mooy alxijaab tahaara lii dafa laab dafa laab warul salte warul taq warul tilim dafa laab léegi yow mi def loolu nag dem ci stade loo ci bëgg ah wala benn benn nangam am nga nga dugg ci mbooloo ma lii dafa laab léeg-léeg ma wax xale jigéen yi ñu ne non man dama am sama benn mbokk buy ngénte il faut ma dem ci ngénte bi kenn terewu la dem ci ngénte bi waaye man damay dund sunna dem naa ci ngénte sama benn mbokk ñu ngay musique ca baas ba néeg baa nga fële fala wasin bi nekk wala ay nit a ngi fële wa man fan laa war a toog waaye da ngay gis ndeysaan mu gàddu système ñëw ba ci baas bi fa musique ba nekk de di tàccu ñoo nekk ca biir kii bi boo waxee mu ne man feccu ma dama doon tàccu lan lañ waxoon lan lañ waxoon ci li nga teg sa kaw taxaaratun dafa laab kenn war la fa gis dafa laab bul ko tilimal lii dafa laab oh mais dafa tilim tey foog ni fóot ko billaahi dafa tilim dafa tilim waxuma tilim dafa tilim ba ñuul gis ngeen lii nii dama leen di ñaan bu leen ko bàyyi de bu yëba ngeen tàmbali ko ci baas bi muy wàcc ngeen di dem ba ba muy yegg bu jëree ñu nekk ci sax ñaari at jar na ko parce que yëf yi dafa yàqu col gi baaxatul muraay bi baaxul moo tax gis ngeen lu ma waxoon sànq mooy gis nga seytaane pour ñu rëcc ko lu doy waar la seytaane pour ñu rëcc ko seytaane dalay bàyyi ngay kolu di muuru di solu mais li ci yëre bi baaxul kol bi baaxul mu bàyyi la ak noonu nga defe ne yaa ngi ci dara am na yëre yoo xamante ne fii ñu toog nii ñi koy jullee yëpp amuñu julli xam ngeen loolu am na yére yoo xam ne yéen a ngi koy jullee ni da ngay julli ba sonn nga dee rek yàlla dugal la safara parce que julli woo ñooñu la yàlla naan fa waylun lil musallin xurwa ca safara ñeel na jullikat yi ñu ne ñan mu ne allazinum an salatihim saaxun jàng leen xadis yonent bi yàlla jàngal yaay ay sa jigéen buy julli yan yére la war a jullee ñoom ngeen xam ne yéen génn wàll gi yëpp kenn julli wu ci sax tisbaar tey waxuma laak nag fan yi passé loolu mooy wax ji il fallait que mbokk yi ñu xool lii ñuy dund lan la du du du lu ndaw du lu ndaw sellal leen mbir mi xool ni ngeen ko war a defee xool yan yére ngeen war a sol xool yan kol ngeen war a kolo xool place yi ngeen war a toog parce que lii tahaaratun laab la laab dafa laab tahaara yaakaar naa lu lu lu kenn ci yéen gàtt xam-xam xam na baatu tahaara lu muy tekki mooy laab nit mën na set te du julli laab nag saa yoo ko defee mën a julli kon alxijaab tahaara waxuñu nit nazaafa de tahaara lañ wax laab ñeenteel ñi may topp alxijaabu iffa muuraay ak solu fegu la fegu fegu fegu xam ngeen fegu baatu fegu lu muy tekki fegu ku xam lan mooy fegu ah mooy dalay aar léegi yow li nga soloon ak li nga muuroo daf la war a aar léegi aaratu la est-ce que aaru nga gis ngeen iffa dafa la war a protéger su ko defee ñu ngi tolloon ci alxijaab iffa muuraayu jigéen fegu la fegu suñ nee fegu mooy lu lay fegal ci lépp lu bon di la aar di la protéger bi nga jëlee bi nga mu solee sol gu jot daal di jël muuraay bi teg ci sa kaw rek ci nga am kiiraay kiiraay loolu ñu naan kiiraay sécurité bi nga ko dindee ci nga ñàkk sécurité kon loolu ngay def mu indil mu lay indil sécurité war nga koo xam war nga xam naka nga koy defee pour mu nekk ci yow sécurité léegi bu fekkee mbir mi def nga ko te amoo sécurité est-ce que kon ni nga ko defee noonu la ci tomb boobu lañ tolloon juróomeel mooy alxijaabu sitrun te lu jigéen muuraayam sutura la sutura lan mooy sutura rideau lan moo tax ñu def ko ci buntu néeg pour bu kenn gis lu nekk ci néeg bi léegi nag xoolal bu ñu ci defee rideau bu yaraax nga xam ne boo toogee fële ci bunt bi yaa ngi ci biti mi yaa ngi seen ki tëdd ci kawlal bi est-ce que rideau boobu amati na njëriñ léegi nag waxuma la loolu rideau yooyu ñu doon def ci néeg yi ngay gis bopp lal bi nga gis ko ko sol def ko mbubu wala gisu leen ko man gis naa tissu rideau ñu ñi di ko ñëw lan laa ci jublu mooy tissu boo xam ne dafa yaraax yaraax yaraax yaraax ba soo taxawee fële di seen biir néeg bi néeg bi yëpp mën ngaa wax armoire bi côté bi mu nekk mën ngaa wax mën ngaa wax mën ngaa wax ba wax porte-manteau bi fi ñuy wekk yére yi rideau loolu rideau la léegi nag bu ko jigéen solee te yow ñu ne la woon lii mooy sa sutura mooy sitre moo lay muur ah léegi nag nga sol ko dama jàpp ne suñu daje suñu daje tey daje la boo xam ne buñ fi jógee loolu loolu tukulóor yi naan noppi malaadi fu dota koy xoore malaande noppi malaadi fu dota koy xoore malaande maanaam nopp yu nar a texe dugg aljanna ëllëg nopp yooyu yàlla ci bopp bu texe la koy def dama jàpp ne suñu nopp yi tey suñ fi jógee waxuma waxuma yére waxuma lu paase de mais après dinañ xam léegi yan yére lañu war a sol yan yére lañu war a jëndi bis bu ñu amatee xaalis ak balaa ñuy génne suñu kër bu fekkee yàlla dugg aljanna dong dong dong dong moo tax ñuy muuru kon balaa ñuy génne dinañ xam nan la ñu war a génnee wax naa leen léegi léegi tisbaar bii moo fi mujj am na ñoo xam ne julli nañ ba pare amuñu tisbaar tisbaaru tay bii am ñoo xam ne fii dañoo muuru mais amuñu tisbaar lu tax parce que yére yi muuru yére yi sol baaxu muuraay yi baaxu loo xam ne nag da nga koy sol di julli sa jaamu yàlla kenn du ko nangu loolu waroo koo génne yére boo xam ne laa wax jigéen bu ko solee bu jullee yàlla du nangu julleem yére boobu waru koo génne ci biti kon yére muuraay lu lay suturaal la sutura mooy lan mooy lu lay nëbb lépp bu dara feeñ ci yow loolu moo tax gis nga jigéen buy sëyi ñu muur ko biñ koy jëlee kër baayam ba bu muy dugg ci kër gi ba ba muy dem ci biir néeg bu bees bi muy dugg tey mën na rombaay nit kenn du xam kii kan la kenn du xam dafa ñuul wala dafa xees ndax niñ ko muuree loolu lañ bëgg ab jullit di ko muuroo loolu la yàlla bëgg ci muuraayu jigéen ak ay yéreem juróom-benneel mooy alxijaabu xayaun muuraay kersa la lu ngeen xam ci ko muuru ku ñàkk kersa muuraay kersa la yow mi muuru da nga war a am kersa léegi nag boo muuroo yére boo boo solee solo sol boo xam ne nga muuru muuraay goo xam ne dangiira la lay jural loolu mooy dëkk xale yi bu njëkk ba mbokk bu jigéen boo gis ne ko asalaamaaleykum mu ne wa aleykum salaam nga ne ko boo ñibbee nga defaruwaat yére bi baaxul danaan la jërëjëf mbokk jazakallah xeer tey danaan la safu la wala mu ne la waaw daal lay kii kanam gi daal benn manière benn geste boo xam ne xam nga ne kii bon li li nga ko wax déggu ko démb laa wax de boo dajee woon ak benn xale bu jigéen ne ko asalaamaaleykum wa aleykum salaam nga ne ko mbokk li nga sol de wax dëgg yàlla boo demee nga defar ba baax danaa la jërëjëf mbokk yàlla na yàlla fay incha allah démb mais tey laa hawla wala quwwata illa billah loolu nag jaaduwul hijab kersa la kersa wal hayaa u kersa aqwal bawaa'is al fadaa'il mbaax loolu ñu naan mbaax kersa mooy numéro un lan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci ñu amul kersa amuñu ngëm yàlla alxayaau min al iman nga kersa ñooy ci ngëm yàlla bokk sànq lan lañ leen waxoon fee alxijaabu iman ñu ñëw fii ne la alxayaa alxijaab xayaaun ñu ñëwaan ne la alxayaau min al iman kon ñoom ñaar ñooy ànd foo gis ku gëm yàlla day am kersa muuraay kersa la lu ngeen xam ci ku muuru ko amul kersa foo toll damay damay faral di wax léegi-léegi bi may julli tisbaar damaa julli ba pare di yërnu ci fenêtre jàkk ci di xool ñi nekk côté bële ma xool ma gis dañuy añ añ rek da nga ciy dégg biru yi añ añ biru yi biru yi añ da nga ciy dégg coow maanaam ñun war nañu dépassé fu ñu toog ñuy ñuy dégg suñu làmmiñ ci biti biru yi wur ñëpp di yuuxu ah loolu war nañu ko dépassé dañuy dem ba sunu jotaay yi jawwu imaan du ci am jawwu imaan ndax lan ay kaf ay farce te yooyu day rey xol gis nga yu ndaw ndawaan yooyu ñuy xeeb kaf yu ndaw ndawaan yooyu ka- ka- xataay fii tàppante fii kalante yenn saa yi ñu déborde dugg ci yeneen nangam nangam gis nga yooyu xam nga lu muy def ci ñun day ruy day day rey day rey sunu imaan yi ñu war a am da koy rey dañoo war a am jawwu imaan jawwu foo xam ne tey bu ñu évité woon benn waa benn nit bu ne tëll rek gis nit ñi ni ñu toogee seen comportement ni ñu añee ni ñu jullijee ni ñu nekkee foofu ba dem ñee mun a ñii daal ñoo yor mbir mi mais bu fekkee léegi suñu yëpp xumb la xumb xumb après xumb na jeex na xumb na jeex na nit ñi ñëw nañ lekk nañ naan nañ dem nañ ñibbi su boobaa dañuy dem ba nuroog ñeneen ñi ñun suñuy jotaay dafa war a am kersa góor ñeeg jigéen ñeeg ñëpp rawatina nag jigéen kersa mbokk yi dafa bokk ci gëm yàlla yonent bi saa salaam nee na ku amul kersa amoo ngëm yàlla yonent bi saa salaam bi ñu koy laaj lan mooy kersa mu ne nga wattu biir bi ak li ko wër nga wattu sexe bi ak li ko wër loolu mooy kersa nga wattu gémmiñ gi ak li ko wër wattu awra bi ak li ko wër soo xoolee li nekk ci kaw bët nopp gémmiñ yooyu mu ne nga wattu leen bët bu mu xool lu yoonam nekku nopp ah ak leneen ak leneen ak leneen nga aar sa bopp ba nga xam ne xoola yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan la seedeel Ousmane ñu ne Ousmane ibnu Affan malaaka yàlla yi dañ koo rusoon malaaka yi yonent bi saa sallam dafa toog ak saxaaba yi tëdd nii tëdd bàyyeeku bàyyeeku complètement comme ku añ ba pare rek nekk ci biir këram bàyyeeku nii xam ngeen dafa doon woddu benn lupp bi nii di génn pooj bi nii di génn saxaaba yi ku ñëw mu daal lay nuyu nii nga toog mu toog mu tëdd ñu dégg benn baat bu nuyoo muy baatu Ousmane yonent bi daal di jóg defaruwaat toog normal ñu ne ah saxaaba yi ne ah yonent ah ñun day ñëw na bi ngay ñëwee ñun defaroo mu ne kii di ñëw malaaka yàlla yi dañ koo rus ku malaaka yàlla yi rus man foog ma rus ko man yonent xam ngeen lu tax Ousmane bu daan tëdd sax këram bu daan tëdd biir néegam bala muy simmeeku dugg ci mbàjj bala muy simmeeku fay lamp bi ndax nee na maa ngi rus malaaka kiraaman kaatibiina yi ànd ak man di gis samay awra allahu akbar xoolal kii fu mu toll ñun waxuma la waxuma la kuy tëdd waxuma la waaye gis ngeen sunu awra ci biti ci biti ci biti ma ni bu nu nax suñu bopp muraay alxijaab xayaun kersa tomb bi ci gën a rëy jikko kersa jikko li ci gën a rëy mooy kersa képp ku ngeen gis amul kersa bu leen ko seedeel ne am na ngëm yàlla lépp lu ñuy wër ci biti ci mbaax wala ci melokaan ci jikko ci nekkin bu ñu ñëwee fii dañ ko war a fekk sunu mbooloo bi yooyu fu ñu koy bàyyi sunu xel li ñuy wax ni waxuñu diw la waxuñu diw la waxuñu kee la waxuñu kee la kenn ku nekk rek soo bëggee jëriñu lépp lu ñu waree da nga naan i man de boobu man maa ko moom. waaye bu fekkee lépp lu ñu wax nga jëñax ki nga ko dendal da ngay ñibbi doo jëriñu da ngay ñibbi doo jëriñu xam nga lan lay jëriñ waxtaan bi lan lay jëriñ mooy léegi bool yi fi jóge bi ñu fi tegee bool yi kenn ku nekk ñun bi nga doon tibb foo doon def man maa oustaz ñoo dee na oustaz bi ma doon tibb kan laa ko doon jox sama bopp joxuma ko de loolu mooy loolu mooy waxtaan bi mooy ci suba ba léegi lépp lu ñu fi dégg kenn ku nekk bi nga ko déggee seetal li nga li la ci manqué boo demee nga ni ah wax dëgg yàlla man toy moom lii nii maa ko moom waaye incha allah maa ngi jaayanteeg sama borom subhanahu wa taala dinaa julli ñaari rakka jéggalu li passé xaw ma lan de waaye li nekk sama kanam pare naa ci loolu moom loolu la lay jëriñ waaye bu fekkee dañ ne fii daal di koy après dem ñibbi billaahi wallaahi wa taala nii la ñuy mel ba dee dajeeg yàlla mu daan ñuy buub dugal safara juróom-ñaareel mooy alxijaab yunaasibul xiira alxijaab aqwa albawaais alfadail al bawaithul fadail mooy kersa moo mooy keno bi gën a dëgër ci keno yi jikko yu rafet su su maanaam mën nga ne kersa su daanoo rek jikko ju rafet amatul tey tey bu ñu la doon tànnaloo jigéen jabar soxna nga gis ko koo xam ne kersa rek la bari jëlal saa yoo gisee koo xam ne matale la lépp waaye amul kersa boo ci duggee yàqu perte kersa mooy mooy ngëm yàlla alxijaab yunasibul xiira kersa muuraay ak colu jigéen lan moo ko ëmb mooy fiiraange da ngay fiire sa bopp tey fiiratu leen lan mooy fiiraange mooy nga fexe sa yaram bi nga ñoŋal ko ba bu ci kenn xool dara di kontaan naka la jigéen di solo sol goo xam ne da nga yow da nga bëgg da nga dem da nga da nga mel ni da nga mel ne ku sangoo ku sangoo sukkar ku sangoo sukkar lan moo lay topp ay weñ naka nga ne naa solu génn pour ñi xale yu góor yi ne ci koñ bi wala ñu waa mbedd mi xam ne man ibaadu la classe la xiira da nga war a fiire sa bopp yonent bi saa salaam dafa toogoon dégg saxaaba yi di waxtaane fiiraange mu dégg ku naan saxaaba yi di critiquer kenn ku ne man de bu ma fekkoon góor ci sama soxna dama koy rey ñu ne kii mu kii mu fiir rek yonent bi génn ne leen waa ji li mu wax man loolu laa ànd man mi yàllaa ma gën a fiir lu tax ku bokkaale yàlla dugal la safara inna allah la yaxfiru an yusraka bihi wa yaxfiru ma duna zalika lu ko waral fiiraange kon jigéen ñi dañoo war a fiire seen bopp gis ngeen baat yooyu ñu leen di wax ñii dañoo ëppal dañuy fas seen kanam dañuy nàngam dañuy yooyu yooyu dafa am benn su ngeen jàngee ci téere tilaawa yi dafa am benn baaxoñ bu jël fromage yëg ci kaw garab gi di lekk fromage bi sex ko bukki bi ñëw bëgg a jël fromage bi xam nga xamu munu munul dem ci kaw garab gi mu ne ko cey baaxoñ dégg naa ne ku mën a woy nga dégg naa rabu àll yi naaw yëpp yaa fi gën a neex baat ak a neexoon tey nga woyal ma ma dégg sa baat bu neex bi baaxoñ bi daal di ŋaang fromage bi wadd mu for ko dem dina mag moom baaxoñ bi naan ko doo ma déglu mu ne ko soxlawu ma woon loolu maanaam yow ñi lay ñi lay ñi lay wax ay lalal naa laag di nga ma tax a dund sunnaag di nga ma tax a nekk ibaadoog ñi lay wax loolu dañ lay jaay rek dañ lay nax te li tax ñu wax la ko mooy da ngaa bàyyi sa diine boo fiiree woon sa bopp ni nga war a fiiree sa bopp wal xiiratu min samimi axlaaqil iman fiiraange dafa bokk ci njombax taloy jikkoy ngëm yàlla lan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne xale yi bu ñu amee juróom ñaari at fariqu baynahum fil madaji te ñoo bokk ndey ak baay ñuy fiire ku góor koo bokkal ndey ak baay ñu la koy fiire ñu ne bu mu fanaanee teeg yow ci kaw lal wala ci biir néeg bu moyee amee dëgg-dëgg bu ñu bokk néeg bu moyee amul bu ñu bokkati lal ah ñu lay wax loolu ki nga bokkal ndey ak baay xale bu góor masama ak mbedd mi kon mani nañu xam ne hijaab yunaasibul xiira dafa war a ànd ak fiiraange nga fiire sa bopp fiire sa diine nga fiire sa diine am fulla chaque jour ma faral di wax xale ne bu fekkee ne ñii dangal wala ñii def bopp neen ñoo am fulla ci li ñuy def ah laa ilaha illallah masama kuy jaamu yàlla ndaw si am fulla ci def bopp neen kenn mënul fexe ba mu wax sax takk ku fulaar ci bopp bi soo ko ne mën a la xoolal yaatal yooyu yow yaay nekk fii di wax yooyu fasal la kanam ba ëllëg ak si biir boo ko gisatee doo ko ñemee wax ne yow lu tax nga def bopp neen ndax tontu bi mu la tontu. am na benn xale bu jigéen Touba day muuru saa yu nijaay ji ñëwee rek ne ko yow ku bon nga waa génn ci xeetu xeetu sëñ bi di ko wax wax yu ñàng day noppi rek benn bis nijaay ji ñëw wax ko rek mu ne ko bu ma ko waxati. nijaay ji ne ko sa kol bi nga war a dindi mu ne ko simmi sa tubéy nijaay ji ne i i ne tekk mu ne mën nga wax loolu mu ne man nga naan naa dindi sama awra li nga ma wax loolu laa la wax te ma ko wax ma delloo la ko nijaay ji pare bu ñëwee naa na nga def mu ne ko maa ngi fi jeex na tout court jeex na ne day am fu la ci diine fii de sa bopp fii de sa diine sa diine gënal la lu ne mais tey daanaka yëf yi mën nga ne pëcc xoola rek ak folklore moo ci bàyyi nit ñi euh, yal nañu yàlla baal daal mais yoo xam ne kenn mënu ko wax euh, juróom-ñetteel alxijaabu iraathatun lishaytaan muuraay ca lu jigéen day merloo seytaane shayatinul insi nag wal jinn doomu aadama bu jigéen bu gëm yàlla saa yu solo génn seytaane mer ñi bokk ak seytaane mbooloo dañuy mer waaw kon yow war ngaa xam loolu war ngaa xam ne saa yoo soloo rek da ngay merloo seytaane kon bis boo soloo seytaane kontaan xoolaatal sa bopp hmm? dama doon seetaan benn émission ci benn télévision bu nekk ci te suñu télévision yi dañu invité ay jigéen ku jigéen moo leen di laaj léegi nag mu daal di indaale jigéen ñooñu mu woo mu am ci ñaari jigéen yu muuru biñ ñëwee ñu ngi defaru defaru defaru defaru bu ñëwee toog rek li mu ci ko wax waay ah yéen ndeke di ngeen def nii ndeke di ngeen ñooñu tamit daan ne ko ah loo bëgg dañuy defar ba mu baax di kabax ba mu kawe maanaam ñoom loolu lañ bëgg maanaam yow saa yoo soloo ku gëmul yàlla kontaan ci seetaatal sa bopp seetaatal sa bopp xamal ne li nga def jaaduwut su fekkoon ne dem nañ nañu waroon demee ca télé ba kon du leen wax ne ah yéen ndeke di ngeen kii nii yi ah yii nag capp-cappal yeeg affaire yi ci la bokk nga dégg ñu ne waaw waaw ca la bokk kay ah gis nga fekk bokk ci wala yubnina zinatahunna wala yubnina zinatahunna illa li buulatihinna aw illa ma zahara minha bu leen wone seen taar yàlla dana ko am taar denc ko ba sa borom kër ñëw nga won ko mais xam ngeen ne loolu aaya yooyu léegi ci kayit yi rek la yem wala yubnina zinatahunna illa li buulatihinna loolu fii la yem fii ci al fii rek la nekk yooyu aaya yi kenn jëfetu ko jigéen ñi ba la ñuy mën a toiletu am xew bañ nañ ko ci sax ba da ngay gis ku ci am doom daan ne ñetti solu laay solu xeex ak jëkkëram ma ni damay solu ñett ndax ay dëkkum ba penda ci jamaa bi lañ bokk solu na ñetti solu damay solu waaw wala di huit heures huit heures une heure benn une heure cinq heures benn cinq heures minuit benn ayna allah ayna allah ayna allah ana yàlla loolu diine la ba pare nag sol googu yëpp nag da nga koy kaseeg daal yeeg saag beeg affaire yooyu ñuy def fii su saag bi bleu daal bi day bleu xef yi bleu wala su saag bi xonkee daal bi day xonk xef yi xonk wala yàlla na yàlla waxoon wala yubdina zinatahunna illa li buulatihina léegi nag nga ñëw nag ndeysaan ay waay ndeysaan seytaane daf ñoo tafu seytaane daf ñoo tafu ndeysaan tukulóor dañuy wax ne yaanooɓe mawnoyde ngartina towa en yaanooɓe mawnoyde ngartina towa mana kii dafa demoon màggi ñu ne ko demal nga màggi bi mu demee màggi mu ñibbisi ñu ngi ko tingoom déggu leen wax bi de xale boo xam ne dafa waroon màgg papaam di ko nax ne ko kaay ma kaay ma yëkkati la nga màgg daal di koy jël teg ko fii est-ce que màgg na bu ko wàccee rek mu xam ne màggu ma loolu lañ loolu moo ñu dal maanaam dañu ñëwoon pour dund diine seytaane daan ñuy tafu ñu nekk ci biir diine ji te dunduñu diine bi dégg ngeen de dañoo nekk ci biir diine bi te dunduñu ko loolu mooy suñu problème foog ngeen seetaat yére yeeg kaala yeeg lépp ngeen xoolaat ko ñu teg ko ci yoon teg ko ci yoon ci yoon bi mooy fan mooy fii li mooy yoon maalam yakun diinan imaam Maalik neen lu nekkul woon démb diine tey ji mënul nekk diine lu nekkul woon démb diine tey mënul nekk diine ndax suñu bopp beneen bi lu gën a doy waar mooy li ñu bëgg mooy aljanna aljanna aljanna aljanna wala du loolu mooy jubluwaay dundu diine mooy jubluwaay bi mooy nga am kontaante yàlla nga dugg aljanna kon alxaya alxijaab iraathatun iraazatun li shayatin al insi wal jinn muraay cokk jigéen luy merloo seytaane jinne yi ak nit ñi ndeysaan bu fekkente ne yow jaamu yàlla bii ngay def day merloo seytaane war nga war nga xool war nga war nga ci góorgóorlu bu baax ndax yaa ngi ciy merloo noonu yàlla yi bu baax juróom-ñeenteel mooy alxijaab ximaayatun lil araad muuraay day aar der yi day aar der day aar ngor day aar jom sàmma léegi-léegi nga dégg ñu ne sàmmal sa der palaasu sàngam bul fa dem sàmmal sa der waxu sàngam bul ko wax ndax nga sàmm sa der hijab day aar der waaw sooy solo ni yàlla bëgg yaa ngi aar sa der kenn du la wax lu ñu war ta wax jullit kenn du la séen ngay dem ñu lay ñu lay ñu lay askanale nangam ñu la koy askanale jamais saa yu ñu la askanalee yenn rek ça veut dire que am nga loo bàyyi ci sa diine léeg-léeg sax léegi nga gis ñu bon ñi dañuy pour bu ñu buggee dem defi lu bon dañuy jël melokaanu nit ñu baax ñi pour bu leen kenn jël di leen sikki sàkk di leen yaakaare loolu fekk mbubb mu ñu sol la rek waykat bi day wax na tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil karimi falahun jéem a nuru nuru lu ay nit day tax nga mel ni ñoom boo jéemee nuru nuru lu ay nit day tax nga mel ni ñooñu bu fekkente ne yow léegi nag aaratoo sa der aaratoo mbooloo mi nga bokk aaratoo islam bi da nga koy xët di jalgati di dem te pare ngay tuddoo ne yow nangam boobu nga da ngay nax sa bopp rek fukkeel alxijaab salaamatun min alfitan xijaab day tax nit ñi mujj ci fitna nit ñi mucc ci fitna fitna bi am fitna bi ngeen gis nii ci dëkk bi ah njaaloo bi lan moo ko waral lan moo tax njaaloo ta- tasaaroo Sénégal mooy nit ñee solootul nit ñi bàyyi seen yaram yi foo tourné di gis awra jigéen ci biti tey lan ngeen di gis ci awra jigéen lu nëbbu lan lépp a ngi ci biti lépp a ngi ci biti léegi sax man li doy waar mooy man vraiment bu ñu demee góor ñi sax lañ xamoon ñiy kiris karas wala ñuy check down góor mais bu jigéen demee bay check down jigéen sol tubéy wàcce tubéy ji sans jiital inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay ñun fu ñu jëm jar naa jooy de jar naa yuuxu it waxoon naa amira bi mu fi mujjee jar naa marche de wallaay jar naa marche dajale ji ñu muuru ci Sénégal gi yëpp ñu dem xaw ma place de l'Obélisque xaw ma lu ngeen fi ñu ne wax leen ci jigéen ñi def yaramu neen ci mbedd yi dëkk àddina bi yëpp xam ko ngeen ñu wax ne yéen jamaatu Ibaadu Rahmaan ni jigéen ñi di solo ci Sénégal neexu leen jot na de jigéen ñi dem du sol tu sol tubéy kese jigéen sol tubéy kese kese ah muy wàcc nag di dem duñ ko sax seen tiire ah man de gis naa ko xaw ma yéen nag gis naa ko de te nag dañ ne woon salaamatun min al fitan day tax nit ñi mucc ci fitna xam ngeen ni mbokk bukki bukki bukki bukki fekk mi ngi jot ci yàpp bi rek la koy lekk nit ñi mënuñu nekk di xool awra yi guddeeg bëccëg te te te du ñu def ay pexe yu leen ci jotal di tax léegi ngeen gis agression am viol viol am yenn saay sax ngeen dégg ci rajo bi ñu ne baay ji moo ëmbal doom ji mais mais normal na de ah normal na xale bu jigéen bi bu tolee nu mu war a toll ngand toll ay 18 ans yaram bi yëpp fere papa ji di xool loolu guddeeg bëccëg te bu guddee yaayam sàngu xool fële mere paa bi paa bi nekk noonu ñeenti weer juróomu weer di gis doom ji bu yàggee mu dem ci doom ji loolu la loolu moo koy indi di chaque jour nga yaa ngi ak sa doom bi yaa ngi gis ay awraam gu dégg bëccëg amul sutura léeg-léeg sax mu taraxlaayu ténju génn ci néeg bi dugg ci dus bi di sangu taraxlaayu daf yaram leen nii nga koy nga koy gis loolu du ñëpp ci mën a mucc ah inna shaytan tajri ala ibnu adam majra dami doomu aadama doomu aadama kese la li tax wax naa leen sànq yonent bi ne ñaar ñu bokk ndey ak baay ñii góor ak jigéen bu ñu amee sept ans nañ bu ñu bokkati nekk mais ñoom ñoo bokk ndey ak baay ñaar ñoo bokk ndey ak baay yonent bi ne bu ñu tëddati laal kon kay baay ak keneen waxi noppi mais tey loolu ngeen di dégg noonu ci Sénégal chaque jour ngeen dégg papa ju ëmbal doomam ñaata yoon ngeen ko dégg léegi daanaka léegi safatul dañ koo dégg dégg dégg dégg ba foo ko wax ñu ne amoon na koñ bële amoon na koñ yenn saa yi sax ko nga ka ko fa defoon sama mbokk la loolu nag dara waralu ko lu dul awra yiñ bàyyi ci biti jigéen ñi bañ doon nëbb seeni awra boobu xale bu jigéen bu judd rek ñu maye la ndax dañoo manqué woon waaye jigéen ñi bañ commencé def yaramu neen ba léegi di nga ci gis ku am 50 ans amul jëkkër misaal boobu dafa dafa dafa dafa sori tabaski bu ñu reyee xar yi ba pare balaa ñuy yekk añ yi 2 heures ak 3 heures 1 heure rek am na ñoo xamante ne bu leen xet gi di xeeñ dañuy feebar dañuy yekk ba pare ne kaay uuf bu ñu tabaskee ba pare ca suba sa koo ne da ngay gis nit ñi di laaj yow yéen lu ngeen togg tey ñun de wax dëgg ceeb ñooy yàpp uuf yow yéen lu ngeen da ngay gis sax ku jël téléphone ay da yéen lu ngeen ñu ne laax ñu ne yéen maa ngi ñëw maa ngi ñëw ne gis nga lu tax yëf yi dafa lamb dafa lamb li tax jigéen lamb tey toog ba am 50 ans amul jëkkër lu ko waral awra yee nekk ci biti foo tourné di gis ñuy lambar lambar rek moom ci mbedd yi ci télé yi fu nekk da ngay toog di xool keroog dañu laaj benn cheikh ne ko waaw man benn waay ne ko man bu ma bëggee seetaan journal te télé bi may seetaan jigéen rek moo fay def journal te damay jàkkaarlu moom direct yaramam nekk ci biti mu ne mu ne cheikh bi ne ko da ngay jël benn benn benn darab sàng télé bi di dégg wax ji bañ a xool ndaw si billaay wallaay loola ko tontu nee na ko da ngay jël benn darab bu ñuul nga sàng télé bi ngay dégg wax ji bul xool ndaw si ndax nga mën a jël information bi yarhamukallah suñ demee ba toll foofu suñ demee ba toll foofu ah wala ci oto yi ci lan ngeen di dégg ci école yi njàng mi lu ngeen ci dégg jigéen ñi maître et professeur bu nangam élève am wala nangam wala oustaz bu nangam élève am wala sëriñ daara bu nangam élève am du loolu ngeen dégg lan moo ko waral muy xale bi dafa jàng fekk ni mu jàngee baaxul sëriñ bi nit dong la professeur bi nit la dafa demee melokaan bu bon waxuma la sax loolu da ngay dégg xale yu jigéen yi naan ah kii dinaa ko am ñoom seen bopp sax ñoo lay cherché ci seen yu bon yooyu ñuy def ngir bëgg ay notes yu baax kon dafa alhijab lan la himayatun lil aaraad waaye salaamatun min al fitan hijaab day tax ñu mucc ci fitna su ñëpp muuree seen awra yi ci biir kër yi ci mbedd yi ci liggéeyukaay yi ci gox yi ñëpp muur seen awra yi kon salaamatul minal fitan ñëpp mucc jàmm rek mooy am fitna dootul amati moo tax société bi islam di ko aar bëgg fitna bu mu ci tasaaroo tey li yàqu bokk na ci li yàqu li ko ëpp muy jigéen ñi ma gis ngeen ñeenañ leen noonu yàlla bi ñu bëggee yàq àdduna bi ñaar lañu ciblé jigéen ak xale parce que jigéen bu yàqoo rek société yàqu jàngeen ñu ne al ummu madrasa yaay école la jigéen école la bu buggee defar bu ñu buggee defar àdduna ñu ne nañ defar jigéen kon bu ñu aaree jigéen ñi ba fitna amatul ci société bi amatul fenn kon dëkk bi daal di mucc kon yàlla moo xam lan moo tax mu ne kon jigéen ñi nañu xijaab fukkeel ak benn alxijaab najaatun min alwaid xijaab muccukaay la pour ci tëkk sunu borom subhanahu wa taala tax ke yàlla dafa tëkk jigéen ji muurul bu dee dee dem safara yonent bi saa salaam moo ko wax ci ñaari nit yoo xam ne yonent bi nee na sinfaan min ahli naar mu ne waaye lam arahuma ñaari xeet yi safara lañ jëm mais man yonent bi gisuma leen ba mu limee ñu njëkk ñi ñaareelu groupe bi lan la wax nisaun kaasiyaatun aariyaatun maailaatun mumilaat ruusahunna mithla aslimatil buxt mu ne laa yadxuluna aljanna laa tadxuluna aljanna wala yazdiqna naimaha yonent bi nee na ñaari xeet yi duñ dugg àjjana deuxième groupe bi mu ne ay jigéen lañ ñoo xam ne dañoo sol yére mais seen yaram yaa ngi ci biti sol yére bu ñu nee sol yére souvent damay faral damay faral di wax ne suñ la nee ku sol yére yaramam nekk ci biti wala ñu ne bopp yaa nga mën la jigéenu gëléem nga jël ko daal di koy jox ay de mais ci salon ba def yaramu neen nga bàyyi sa bopp nga ni kee la waxuñoo ak yow am na ku muuru koo xam ne yaramam a ngi ci biti bu ma ñëwee léegi ci suratul hijab di ngeen xam ne ñu wari ci yéen seen tisbaaru tey julliwuñ ko maa ngi maa ngi ñëw mu ngi nii di ñëw alxijaabu salaamatun min alfitan alxijaabu najaatun min alwaid naam muraay muccukaay la ci mbugalu sunu borom subhanahu wa taala mbugal mbugal la mbugal sunu borom ci xijaab ni yàlla santaane kooku daf ci mucc kon lépp loo xam ne daf lay muccal war ngaa fexe ba xam nan nga koy defee nga sellal ko ndax nga mën a mucc sunu borom subhanahu wa taala bu ne ay jigéen yu solu waaye seen yaram yaa ngi ci biti yonent bi saa salaam toog naag umu salama ci biir néeg ba càgg xaaju guddi rek mu daal di tiite ci kaw lal bi jóg toog daan ne yee leen ma jigéen ñi ci biir tànt yi man yuqizuni saahibul hujuraat ñu daal di yee jigéen ci tànt yi ñu ne ko lan la yonent bi ne uu tey li ñu wàcc ci guddi gi ci ay fitna kenn xamul nu mu toll yàlla nee na ma rubba kaasiyaatun fi dunya aariyaatun yowmal qiyaama am na ñu solu ci àdduna yowmal qiyaam dañuy rafle te solu nañ mais yowmal qiyaam dañuy rafle te sol nañ ay yére mais yowmal qiyaam dañuy rafle rubba kaasiyaatun fi dunya aariyaatun yowmal qiyaama kon mbir yi nekkul lu yomb mbokk yi nekkul lu yomb nekkul lu simple comme niñ ko foogee ñun suñu bopp moo tax dafa laajaat kenn ku nekk nga dugaat sa rukk bu dajee nga këpp armoire bi ci digg néeg bi xool yére yi nga war a solaat ak yi nga yére yi nga warul solaat xool kaala yi nga war a teguwaat ak yi nga warul tegu waaye tey jii fu ñu toll nii ah am na kol yoo xam ne moom wax dëgg yàlla seytaane moom am na ci ndam seytaane kontaan na ci yenn kol yeeg yenn yére yi waaw léeg-léeg nga mu nga nga nga taxaw ci kanam yàlla di julli seytaane ñëw di ree rek naan ndeysaan dafa sonn te du fayeeku di ree dafa sonn te du fayeeku bàyyi ko rek bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko mu julli seytaane dafa dugg ci jàkk ji fekk ñaari nit kee di nelaw kii di julli mu ñëw di ëpp kuy nelaw ki ni ñu ne ko waaw seytaane kii di nelaw kii di julli yow kay kii julli nga war a yàqal mu ne kii jaahil la xamul dara kii moom xamul dara li muy def xamul ci dara kii nag moom borom xam-xam la bu yeewoo day defar kee li mu yàqu moo tax ma koy upp bu mu yeewu loolu mooy ku xamul dara kuy def xamoo dara ndeysaan li nga sol dara baaxu ci nag yaa ngi julli yaa ngi woor yaa ngi jàng alxuraan seytaane ndeysaan ay maa la yërëm li ngay def ni amoo ci benn tiyaaba di wax ak yow parce que kol bi baaxul yére bi baaxul kon najaatun min alwaid fukkeel ak ñaar alxijaab tumayiz muraay col ko jigéen day day tax ñu ràññee la ñu ràññee ñu mën a ràññee ji jullit bu jigéen ak ku dul jullit bu jigéen ñu mën leen ràññee soo ne tëll rek kii xam ne yow jullit bu jigéen nga day ràññee tumayiz quand ñu xam foo bokk yaa ngi bokk ci innal muslimina wal muslimaat bokkoo ci wal mushrikina wal mushrikaat bokkoo ci munafiqina wal munafiqaat dañ lay ràññee xam fi nga bokk tumayiz sette la ñaari équipe bu ñu nekkee ci terrain bi di football arbitre bi nan la leen di xamee ah maillot yi ñu sol voilà lii maillot la maillot la léegi nag benn équipe benn joueur bu nekkee ci benn camp bi mu ne man yëre bu ma neex laay sol damay football parce que man mën naa football yëre bu ma neex laay sol du ma bokk ak beneen sama équipe maillot arbitre dina ko bàyyi mu jouer ah est-ce que waa équipe bi sax war nañ ko bàyyi dinañ ko bàyyi mu dugg mbokk yi loolu mooy suñu problème. yenn saa yi xam nga fi day laaj benn waay benn jigéen ñëw thème de formation yooyu nga ne ñu ne ko dama nga ñibbi dama nga sol ji waaye kenn dox kenn dara nañu noppi rek li mooy ànd jayante wéet jayante kañ lañ gëj a wax nit li nga sol baaxul de dañuy bàyyi nit ñi rek ñu nekk ci lu bon li wala ni nga jullee baaxul ah ni nga jullee baaxul wala ni nga sol baaxul gis nga bul bañ ku la sikk ku la sikk ci lu yàlla wax affaire am la wax naa leen sànq rabia jigéen la ci seen morom da daan wax lay taka tarda wal anaamu xidaabu yàlla soo kontaanee ku mer affaire am la bu leen bañ ku leen mere muy bo ngeen wax puisque wax ji dafa am importance léeg-léeg am ku fàtte woon fàttaliku léeg-léeg am ku xamul woon xam loolu la ba pare xujja la encore ci ëllëg kii ànd ak yow ci kanam yàlla nga ni waxoon nañ ko ko bu ñëwee ci léegi surutul hijab yan charte la ñuy soloo yan charte la ñuy muuroo foofu boroom xam-xam yi bind nañ fa juróom-ñetti tomb yëre jigéen juróom-ñetti charte la am juróom-ñett huit wala loolu rek huit charte sa yëre yi nga war a sol huit charte la ilaha illa allah huit charte yoo war a xam sa yëre nii la war a mel ak sa muuraay su ci manqué baaxul da ngay solu ba dee baaxul ban moo ci njëkk ñu ne an yakuna badanul mar'a mastura bi akmalihi yaramu jigéen bi na sàng na yëpp sàng ba mu des liñ ko ne lii feeñ illa ma zahara minha yaram bi yëpp dafa war a sàngu kii kii kii julli yeel yi nekk ci biti est-ce que julli na waxoon naa leen ko de kii julli lii sama yëre bi sama yëre bi fi mu yem nii lii du yëre jigéen képp ci yéen kuy julli lii lii fii sama yëre bi yem yëreem yem fi day sonal boppam julliwul buy dee dem safara fii fii laa wax de sama yëre bi fi mu yem nii nii nga ni allahu akbar pare ne nii lii yëpp di feeñ lii digg loxo bi wala sax yenn saa yi conc bi feeñ nii yëre bi yem fii fii sonal sa bopp day nax sa bopp kon dañu ne yëre bi da ngeen de charte bu njëkk an yakuna badanul mar'ati masturan bi akmali yaram bi yépp na sàngu yaram bi dafa war a sàngu bu dara feeñ ba mooy tomb bu njëkk léegi nag yow boo solee yére boo xamante ne sa yaram bi yëpp sànguwul am na lu sàngu am na lu nekk ci biti est-ce que sa yére bi yére yére yére jigéenu jullit la ah yére bi yére jigéenu jullit la boo demee nga ñëw robb bi mu gàtt wala zip bi mu gàtt wala marinière bi gàtt ah léeg-léeg booy rukkoo ni nii sa ndigg li génn nga moo tax yenn saa yi damay gis ay jigéen di julli di wàcce sër di wàcce wala pantalon ñu wàcce wàcce wàcce ba ci suuf ceeb dëgg ma ni ku ci sujjóot ba ni dum doon muur ci suuf doon muur ci kaw xaw ma ci suuf fa ca kaw ne ful lu génn booboo gën a bon di loolu noo koy defee nga balaa càkka yi waxoon nañ la wàcceel sa sër bi waxoon nañ la ko la la yonent bi waxoon Aïcha sëmbartalal sibr mu ne bu feeñee mu ne nga sëmbalataal sibr mu ne bu mu ne soo su may dox ci mbedd mi sobe bi nag mu ne boo ñëwee ci sobe suuf sowoo si dina ko dina ko setal fan ngeen gisati yére boobu sibr boobu fan ngeen ko gisati maanaam li ñu waxoon li ñu waxoon góor ñi moom la jigéen ñi def li ñu waxoon jigéen ñi góor ñi di ko def buubal jigéen a ko moom gàttal góor a ko moom léegi nag góor ñi ñooy buubal jigéen ñi gàttal dañoo changé mbir yi fa baddala allazi qawla allazi qawla qiila lahum waaw dañoo changé wax ji nga xam ne du moom lañ leen waxoon kii balaa ñuy julli ji ñu jël beneen tomb muy ñaareel bi kon wax nañ tomb bu njëkk bi mooy yére bi kaala gi na muur yaram bi soo mooy sàtt bu njëkk nay muur yaram bi yépp bam daj yére bi ngay sol kaala bi ngay tegu na nga fexe sa yaram ba ba mu ci dara du ci feeñ ñaareel bi mooy allaa yakuna al xijaab fi nafsihi riina bu mu nekk nag taar waaw bu mu nekk loo xamante ne boo génnee mel ne ku jóge salon ba waaw bul jël mukk loo xam ne da nga koy sol ci sa yaram loo xam ne da ngaa bëgg boo génnee rek ñu ne ñëpp ku doon ku nekkoon di dawal oto sax gis la daal di frein taxaw di xool na nga fexe ba sa yére bu mel noonu za alwanin jazaba na nga fexe ba bu mu am ay couleur yuy xëccaate yuy attirer attention ci nit ñi ci yow forom ñu taxaw ah waaye nga fexe nga sol yére boo xam ne boo rombee nit ñi sax kenn du sentir ne am na ko fi romb waaye sol yére boo xam ne fu la nit seen rek taxaw di xaar nga yegsi waaw ak di la provoqué ndax yére bi nga sol yére boobu baaxul kaala googu baaxul kaala gi lislaam wax mooy bu mu nekk yére boo xam ne yére taar la ziina du xam ngeen ziina loolu yàlla waxoon sànq ne wala yubdina ziinatahunna bu ñu feeñal seen taar lu dul seen i borom kër kon na nga fexe ba booy génn ci mbedd mi bul sori yére boo xam ne da ngay tiire attention ci kaw nit ñi wala nga leen di wan ne yow tey da ngaa taaru bu ñemoon ci ñaari sart yi rek ñu xam ne muuru wuñu ñaar yi waxuma laak nag mu nekk juróom-ñett ñaar yi ñun tey fii balaa ñuy am lu balaa kenn ci ñun di am lu ko neex mooy booy génn nga solu ba boo ñëwaatee ci kër gi nga génne sagar yi sol yi léeg-léeg ci waxtaan yi may def internet message aux hommes mariés ma ne jigéeni Sénégal mënuñu sëy jigéeni Sénégal mënuñu sëy pourquoi kenn doo ko fekk mu sangu ba set ñëw toilette ba rafet ci def yëpp lu mu war a def ci yaramam ah solu ba rafet ci yëre yoo xamante ne toog di xaar borom këram jamais moom kay saa yoo ñun ñëpp góor ñaa ngi nii saa yoo fekkee sa jabar muy sangu taxaw di defaru génn yëre yi teg ne ko foo jëm du la wax mu ma lay teeru mukk moom kay maa ngi damay dem léegi rek léegi mu duma guddee maanaam léegi ma ñëw rek saa yoo fekkee jigéen sangu defaru day dem musiba la te yàlla dana woon booy génn bul toilette soo toogee ci kër gi nga war a toilette ndax toilette yàlla nee na jëkkër ko moom waaye jigéen gi saa yoon fekkee seen kër yi ñoo mburu làmb yi ñoo niroo am ngeen mbërum làmb ah mbëru làmb bu nekkee ci combat bi ni muy mel noonu la jigéen ji di mel seen kër yi loolu musiba la sooy génn nag nga defaru ba rafet foo jëm koo koy wani kan nga koy wani taar bi yaa ngi bàyyi ki nga ko doon wan léegi ngaa ngi dem ci mbedd yi léegi da nga bëgg a xëcc góoru jàmbur yi pour ñu xool la moo tax ma ni ñaari chartes yi buñ ci yemee danañ xam ne muuraay bi des na ñetteel ci mu gaaw an yakuna kafifan yëre bi kaala gi na fat na fat bu mu yaraax fan lañ toll ci loolu kol yu yaraax yi yére yu yaraax yi yére gi boo xam ne boo ko nee nii gis ñëpp mën a lim ñëpp yére yére yére boo xam ne boo ko defee nii laa ci kanamu nit ñi nga gis mbooloo mi yëpp nga xam ne leen te yére bi dañ ne woon na fat kafifan gayru raqiq wala shafaaf yére bi bu mu yaraax ah julee n arten ñetteelu tomb bi mooy an yakuna kafifan yére bi na fat gayru raqiq bu mu nekk mu yaraax wala shifaaf bi xaysu la yuzhiru min xalfihi shay'un min basaratiha yére bi bu mu nekk yére boo xam ne dafay feeñal lenn ci yaram bi muy feeñ loolu mooy ñetteelu charte bi ñeenteelu charte an yakuna waasian gayru dayiqin na nekk bu yaatu bu mu nekk bu xat bi haysu laa yujassimu l awra wala yuzhiru amakin al fitna fi l jismi tomb bi moo ci gën a garaaw mu ne yére jigéen na yaatu bu mu xat bu mu nataal fenn ci awra yi nekk ci yaram bi léegi nag yow bu ngeen jëlee yére bi loolu la loolu ngeen dégg ñu ne yére jigéen warul mel ne mbarum fetal a ngeen mbarum fetal mbarum fetal mbar mooy fii fetal di dugg colt bi xam ngeen colt bi boo dindee pistolet bi nga bàyyi fi colt bi day mel ne ba léegi pistolet baa ngi fi mooy mbarum jaasi boo génnee jaasi yi nga bàyyi mbar mi day mel ne jaasi jàng ci biir parce que yére noonu lañ ko ñëwee yére jigéen warul yaamu jigéen kenn warul ñaw salon sa yaram ni mel nga ñaw yére bi noonu nga xam ne sa ween yi day génn sa ginnaaw gi génn sa ange yi génn ah nga yër ñaata yoon ngeen di gis tey xale bu jigéen bu bu sol loolu ba pare muuru sol loolu ñaata léegi nag nga bëgg a dund ci loolu ba dee nga yaakaar ne yaa ngi ci hijab olof yi nee nañ ku na ku noppi nax sa bopp sa aajo faju ku noppi nax sa bopp sa aajo faju ku faj ku tëdd ci lalam di saw jaaxaan di saw tëdd sa kaw lal jaaxaan di saw bala ngay xam ne ci musiba nga nekk nga yeew fajar loolu mooy ñun li ñu nekkee nii mooy li ñu nekkee di sol yére yére boo xam ne ah dañu ne yëg yére bi na nekk waasi na nekk bu yaatu nga sol bu xat xayru dayiq bu mu xat nga xatal ko te yow yaa dem ba ci téyër bi ne téyër bi nag moo ko ñawal yére bu xat bal sax da nga faa yóbbu ba modèle li ma doon xuloog sunu boy na mbokk téyër ibaadu téyër di ñawal jigéen yu xat ma ni ko yow yow yow yow yow yow yow yokk ko yow da ngay yow ja yaa waaj musiba rek ngay def yow nit ñi di xuloo yuy xat yow ngay ñawal jigéen ñuy xat kon na ngeen xam ne yére yi ngeen di sol warul xat dafa war a yaatu warul nataal aussi seen yaram yi kenn warul nekk ku sew sol yére ñu xam ne da nga sew normalement bu fekkoon ne da ngaa ëmb sax boo yére boo boo solee yére bi génn kenn warul xam ne da ngaa ëmb waaye mais xoolal ëmb ba pare daal di sol yére bu xat mu ne déet ak doy waar nañ leen góorgóorlu mbokk yi mbokk yi waaw buñ nax suñu bopp dégg ngeen ñu leen góorgóorlu aljanna lañ bëgg maanaam ñun ñëw ñu di dund dina ngir nit ñi tey li ñu tardeel mooy nit ñi ñoom diw lii la ñuy def loolu de diw bu ko lëg yàlla yàlla yóbbu safara yow bul fexeel bul ci bokk wala fi dañ naan bokk ma ci xaw ma du man du man ndong bokk ma ci moo gën loolu mooy suñu problème bul xool ñeneen ñi li ñuy def yow xoolal sa bopp alaykum anfusakum laa yadurrukum man dalla izahtadaytum yàlla nee na yéen bu ngeen jubee seen bopp ñi réer sànku nar a dem safara yéen seen yoon nekku ci kon nañu fexe yëre yi nañ ko yaatal bu mu xat bu mu nataal awra wi bu mu nataal awra yëramu jigéen awra la am na yëre booy sol ni nga ko defee da ngay gis sax ki la bëgg nopp la bëgg laa tag bu ñëwee naan suu sa yëre boobu moo saay sa yëre boobu sa yëre boobu bi nga ko solee moom moo tax ma topp la nii nga ne yëre boobu musiba la yëre bi nga xam ne bi nga solo moo tax góor topp la ah xam nga ne yëre ba baaxul ba sax bu ngeen même bu la takkee da ngeen di toog mu naan la sa yëre boobu sa yëre boobu dafa garaaw yëre boobu moo suñu sëy yëre boobu moo ko waral ixwatal iman juróomeel an laa yakuna muattaran muattarun aw mubaxaran yére bi boo ko solee pare nag bul ko bul ci def gonga bul ci def cuuraay bul parfum ñaata ci yéen ñooy génne di parfum instant rek dina parfum bi dama déodorant laa diroo mooy lan lekkuma yàpp ñeex bi laa naan ñaata jigéen ñaata jigéen ngeen di gis fi yu génn di parfum seen yaram bal saam na ci ñoom dañuy jël ànd def ci cuuraay tiimal ci yére bi bu yére bi xeeñ ñu doog a sol xam ngeen yonent bi lu mu wax ci loolu bépp jigéen bu xeeñ parfum génn góor gu mu xeeñ rek njaaloo nga ak moom beneen riwaaya bi yonent bi nee na kenn du la nangul julli dul nga sangu set yonent bi nee na bépp jigéen bu def parfum yaramam génn rombaay góor njaaloo na ak góor ñooñu kaza wa kaza la wax kaza wa kaza beneen fii riwaaya mu ne laa kenn du ko nangul julli dul mu sangu set gis nga ku def sa yére jigéen bu def yaramam parfum génn bu ñibbisi ci kenn nga war a sangu set nga ne woon njaaloo xam ngeen loolu du ndaw kon sàmmonte leen ak sart yi wax naa leen lii du du dama bokk ci mbooloo mi rek wala maa ngi muuru rek du loolu de lii jaamu yàlla la ibaada waxoon naa leen ko sànq ci kaw alhijab taatun lillahi wa rasulihi léegi yow nga sol yére boo xam ne yére bi parfum kese la parfum wala yaa ngi def cuuraay wala yaa ngi ko wala yaa ngi ko def ba nga xam ne yenn saa yi nga gis paa yu doy waar yi nga xam ne ci grand place la ñuy toog benn maire dana dem ñu naan waajaa li ngay xeeñ nag parce que dafa am lu mu def ci yaram bi waaye yow ajaa yow ah li ngay xeeñ nag bu dee maire yi moom loolu lañ leen di wax bu dee xale yi ndaw yi nag dégg nga kon yàlla yo- yonent bi li mu wax mooy dëgg naka ngay defee sa yére ciwraay wala nangam nga génn góor ñi naan la li ngay xeeñ wala li ngay kii ah wala nga toog ci oto sax bugg wàcc ñu ne la nu benn non non bul wàcc wuu, li ngay xeeñ a neex waaye bul wàcc waay bul wàcc sama soxna daf may nettali dafa dugg si peer mu ne benn xale bu jigéen ñëw sol yére yi bon yi mu takk mu ngi ci biti di génn mu ngi toog won benn waay ginnaaw waa ji toog di xool rek am ku wàcc ci oto bi su- xale bu jigéen bi bëgg a jóg fi mu toogoon changer place waa ji ne ko doo jóg maay fay toogal nee na da ko ne waaye doo jóg daal di bës ndaw si ne ko toogal maay fay ndax rek xoolal mi ngi toog di xool rek di dundal xolam billaay soxna si ñëw di ma nettali naqaru affaire bi ne kii ñii kenn bëggatul sax nekk jigéen ñi ki bon jigéen ju bon tey laa bokk di ma ko nettali ne ko voilà mu ngoog li moo tax ñu war a yar nit ñi parce que daf ci am ñoo xam ne ci dëkk bi dañoo feebar fam yàlla moo ko wax wala tadaxna bil qawli fa yatma alladi fi qalbihi marad dafa am ñoo xam góor ñoo xam dañu feebar dañoo am faiblesse kon nag foog jigéen ñi yaru defaru pour feebar yooyu ak ñi ko am mu bañ a tasaaroo ci biir société bi mais bu fekkente ne nag rawatina ñi nga xam ne yéenay dund diine kon ki- yii ñi yii ñi indi charte nii yii nii charte yi ñi baaxoon démb charte yi ñoo leen baaxal ndax bu ñu bëggee jaamu yàlla dañoo dëppale seen jaamu yàlla ak charte yi bu ñu la nee lii boo ko defee sa njàpp yàqu na nga def ko ba pare taxaw di julli julli nga wala julli nga wala julli woo tontu leen buñ la nee yére bi nii la war a mel nga dem jël yére bi dëpp lànk ko dëppale ak charte yi ba pare sol yére bi war a taxaw ci kanam yàlla naan da ngay julli koy julli yàlla mi la ne yére bi nii la war a mel nga lànk ba pare nga bëgg a taxaw ne da ngay julli koy julli ah loolu jàmmoonte leen ci ak bu baax juróom juróomeel mooy ah waaw sixième waaw an laa yakuna fiihi shibhun bi siyaabi rijaali wala malaas bisihim fexe yére bi bu mu nuroo ak yére góor bu mu nuroo col ko góor bu mu nuroo ak yére góor yére yi ngeen di sol fexe leen tissu bi bu mu nekk tissu góor bu mu nekk meloka me- ñaw bi bu mu nekk ñaw ñaw góor loolu daf ci jar bàyyi leen ko xel yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan la wax laana allahu almaratu talbasu libsata rajul yal na yàlla soril yërmande jigéen ji sol col ko jigéen góor jigéen ji sol col ko góor yonent bi dafañ la ñaanal yàlla de ne yal na la yàlla soril yërmande kon jigéen dafa am nature bu mu war a mel ci yéreem ci melokaanam ci léppam juróomeel bi mooy yére bi juróom-benneel bi bu mu nuroog yére yi góor kon yére yi góor amoo droit sol ko waxuma laag na ko jën tey jigéen ñi lan la ñuy sol yére góor ñi rek tubéy rek tubéy rek léeg-léeg ma dugg oto nekk ci ginnaaw ba ci ma ne xaaral ma compter ñaata jigéen yu woddu laay gis bu ma nee un balaa may am deux dugg parcelle jigéen ñi tubéy rek koo romb tubéy la sol sa yaram day daw tubéy rek ba kañ ah te ñu ne dañoo bëgg dañuy jaamu yàlla dañu bëgg man su may wax loolu sax waxuma waxuma ñi muuruwul de ñi muuru laay wax ñi muuru ñi muuru ñaata xale yu jigéen ba ci léegi jàkka ji gis naa xale yu jigéen yi sol ay pantalon muuru di julli ku ñuy julli léegi léegi tàkkusaan bi gis naa fi ñu sol ay pantalon di julli waaw pantalon pantalon di julli na pantalon pantalon julli na albani sax di wax ne ji góor gu sol pantalon julli julli waxuma laa gu jigéen albani lan la wax góor gu sol pantalon mu ne tegoo ci dara ci kaw julli mu ne julli woo waxuma laak nag jigéen kon na leen yàlla na yàlla yërëm juróom-ñaareel allah yakuna fihi shibhun bi siyaabil kaafiraat wa malaabisihinna juróom ñaar juróom ñaareel mooy yow jigéen bi sol yére fexeel ba yére bi mu nuroog yére yéeféer dafa am couleur yoo xam ne yéeféer yee ko moom fexeel ba yére bu mu nuroog yére yéefér yére yéefér ñaata tey ci ñun ñooy ñëw modd yéefér yi modd yéefér yi gis tele rek benn yéefér bu taxaw ci chaîne bi nga xëy suba uti catalogue ubbi ba gis niñ ko ñëwee nga dem ne tailleur bi ñëwal ma kii te xam nga ne yére bi yéeféer moo koy sol Hmm? yére bi bu mu nuroog yére yéeféer bu mu nekk ci seen colka bu dee góor bu dee jigéen dañ ko ko tere man tashabbaha bi qawmin wa huwa minhum ku nuru nuru ni ay nit yonent bi nee na yaa ngi ñoo mayam man kassara sawdaa qawmin fa huwa minhum ku dem ci mbooloo ay nit yonent bi nee na yaa ngi ñoo mayam kon jullit na fexe ay yéreem dëppoonteeg charte yi juróom-ñetteel mooy allah taqsida bihi assuhra bayna annaas yére bi ngay sol bul ci jublu siiw siiw ay moom da yére bi mu ngoonoo tey laa ilaha illa allah ay day moom yére bi mu sol ci mariage am bi yére yére siiwa nga da nga bëgg a siiw yére bi nga sol ko pour nga siiw ah sol yére pour siiw yére bi non yére bi bu may dem tour balaa koy sol wala conférence bi conférence day am nga def ñooy ñawlu nga ñawlu naa kay conférence bi kay nag lu bees laay sol nag congrès bi kay nag lu bees laay sol nag ah loolu ban dalil la ban dalil lañ ne congrès foog nga ñëw yére bu bees loolu mooy yére siiw bëgg a siiw loolu dafa xaram baaxul bul sol yére boo xamante ne yére bi tur nga ci bëgg tur tur bëgg ñu ne si robe bi mu soloon ci mariage bi cent mille lay jar te xoolal xam nga lu doy waar mooy yére boobu benn bis nga koy sol jour mariage bi après terminé nga yàq 100000 man ñi ma gisoon ñu def ko yëpp dañ ko doon réccu jënd tisi boo xam ne ñaw ko robe mariage boo xam ne benn ngoon gi nga koy sol diggante après nga ñëw simbi ko ke foo koy solati dem ndax foo ko solaa ñu ne moo yow xanaa sa mariage du jeex na foo ko solati ñëw dootoo ko solaat xoolal xoolal xaalis boobu nga yàq te nga mënoon ci am lu dul jeex damay faral di wax ne ëllëg yàlla foog mu duma jigéen ñi xam nga lu tax cinquante mille mën nga ci am yére bu baax bu fat bu rafet nga ñaw ci mu mat lépp am waaye da ngay gis ku dem jënde ko juróom benn mètre fekk mënoon na ci am douze yaar mënoon na ci am douze yaar laa wax douze mu dem jënde ko trois mètres trois mètres yoo xamante ne du mat sax du mat sax sër muy ut yeneen yi muy ut ay leneen lu nuroog moom di ko di ko di ko ci kepp di ko nuroowle ma xaaral ma dem ñambaas ko ci ak ay kii ndax kat du mat te cinquante mille wala cent mille la jar yéen yéen seen jamono ak jamono saxaabiyaat yu jigéen yi nga xam ne day koo xam ne day saan daawul julli fajar day bàyyi ba jëkkëram ñëwaat simmi mantoom jox ko mu sol julli seen jamono ak jamono ñi la ñu gën a neex ah seen jamono yéen ak jamono ñi nga xam ne amuñu woon lu ñu muuroo ñuy xotti seen suufu sër di muuroo yéen tey koo ci dem armoire am am na ci ñoo xam ne seen yére tabaski lañ tabaski lañ ko gëj a sol armoire bi yére yu bees tàkk ci nekk fees sans sans sans yére ngi sans col sans sac sans dàll te kenn du solu col bu baax loolu yàlla naan yonent bi naan kaasiyaatun fi dunya aariyaatun yawmal qiyaama armoire bu fees dal fekk yére benn baaxu ci benn yére julliwul benn yére mënoo koo sol ba yàlla gërëm la kon sunu sunu jat jataay tey jataay la woon boo xam ne dañ doon jël dars càmbaraat sunu bopp gis nga lii ñu doon wax fii mën ak yéen ñoo ci bokk yam suñ ko jëfee bu ëllëgee yàlla fay ñu bu ñu lànkee mu nekk xujja sunu kaw yàlla ne la bisub sàngam dimaasub sàngam toogoon nga ca école imam malik ca jàkka ja ñu doon wax sart yëre jigéen nga toog déglu ba mu jeex tàkk nga ñibbi ne moo ñu ne dañuy bañ ko solu man de dinaa taaru ndax amaguma jëkkër moo fi nekkee naan nii dama fi lamb kon wax jàngoog oustaz li ci jub ci yàlla la li ci am ay njuumte ci man la maa ngi koy jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu